dakarmidi.net ñu ngi leen di dalal ak jàmm seen émission jotaayu politique jotaayu politique muy seen émission boo xam ne fépp leader politique nekk ci Sénégal yéen ko fa fekk jox kàddu mu waxtaan ak askan wi tey ñoo ngi dalal kii di Mamadou de Decroix di président AJ/PAD c'est di honorable député nekkoon fi tamit ministre d'État nekkoon fi ministre de la culture et tamit de la communication président ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay euh, Junior. président ñu jëm si présidentielle. opposition bi tey lan moo war a nekk xeexam. waaw may dama bëggoon euh, bala ma lay tontu ma nuyu suñu mbokk yi ñuy seetaan di déglu euh, kenn ku nekk ci turam ak santam moo xam ci biir Sénégal ak ci bitim réew. waaw loolu laaj la bu am solo boo boo ma laaj. Euh, xam nga élection député ak élection président dafa bokkut élection député yi euh, comme Gambie la élection député raw gàddu la maanaam euh, boo gisee boo demee Gambie opposition bi yëpp nekkoon ànd nekk benn jàkkaarloo ak jàmme c'est que foofa raw gàddu la maanaam bu fekkee ne téeméer dañu wote yow nga am fanweer ak juróom ñeneen ñi nga xam ne ñoom ngay xëccool amu ci kenn ku am fanweer ak juróom da ngay da ngay gis nga yaa ngi am fanweer ak juróom juróom benn fukki nit ak juróom woteeluñu la waaye da ngay gañe ndax raw gàddu bi ama boo ñëwee fii ci Sénégal ci élection député yi Dakar euh, waa kër Macky Sall nee nañ gañe nañ ko waaye fanweer ak ñeent lañu ne moom la ñu am fanweer ak ñeent ci téeméer bu wote fanweer ak ñeent ñoo leen ci woteel kon am na juróom-benn fukki nit ak juróom-benn yu leen woteelul waaye gañe nañu lu tax gañe nañu raw gàddu moo tax raw gàddu baaxul raw gàddu moo tax ba ci assemblée nationale bi comme ni ma ko waxee premier ministre Ben Abdallah Dionne keroog bi mu ñëwee assemblée ma ne ko mbir la mu ñu war a seetaan ndax fii ci assemblée bi yéen 49 pour cent ngeen am ci suffrage exprimé maanaam. ñi wote ñëpp ñëpp ñëpp suñu wàññee téeméer bu ne ñeent fukk ak juróom-ñeent ñoo ci woteel waa kër Macky kon xam nga amatul majorité juróom juróom fukk ak benn voté lu ñu leen yow kon ci ñi wote amoo ci majorité mais ci biir assemblée bi raw gàddu tax na ba ci biir assemblée ñoom am nañu téeméeri député yu ne juróom-ñaar fukk ak juróom ñoom la ñu àndal ñun ñi am juróom fukk ak benn ci suffrage universel vingt cinq pour cent la ñu am ci assemblée téeméer bu ne ñaar fukki député ak juróom rek ñoo ci àndul ñoo ci nekkuloon ci seeni liste kon xam nga boobu élection boobu mode de scrutin façon wote boobu dañ ko war a weesu man naka jekk loolu laay wax ci jamono président Abdou Diouf moom laa doon wax di ko ñaawlu jamonoy président Abdoulaye Wade aussi ci laa bokkoon mais dama ko doon ñaawlu jamono Macky Sall ji aussi dama koy ñaawlu fokk ñu génn ci euh, raw gàddu bu fekkonte ne élection proportionnel la kon ñoom juróom-ñett fukki député la ñuy am ak ñaar te te te euh, maanaam maanaam benn bi plus fort reste lay doon kon ñun dinañ am juróom-ñett fukki député ak ñett kon ñun ñoon leen di ëppale kon nag euh, mbir la mu jar a seet léegi nag ma ñëw ci élection présidentielle élection présidentielle moom bokkut ak bii passé comme ni ma la ko waxee élection présidentielle bu fekkente ne dañoo voté conk mu jëkk kenn amu ci euh, euh, cinquante pour cent yu tegu maanaam bu dee téeméer a voté foog nga am juróom fukk ak benn soo ko amut day am deuxième tour maanaam dañuy furliwaat bu ñuy furliwaat nag moom ñaar ñi jiitu rek ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy dem ci bërëb bi ñi ci des nag ñooy set kenn ku nekk ku muy jàppale walla bañ ko jàppale loolu différence bu ama ama ama am solo la parce que muy faral di dégg ci grand place yi ñuy wax waa opposition bi dañoo war a ànd waaw d'accord waaye ànd bi nag warul tekki ne dañoo war a wut benn candidat parce que loolu euh, baaxut ndax bu fekkente ne dafa am fukki candidat euh, Modou su dee candidat la ñi farak moom kenn ku ne attan ngaa jaay sa kër wala sa alal pour woteel Modou pour mu gañe waaye bu Modou ne bokk bokkatuma euh, di dul ñàkk am ci ñu ne ah kon ma woteel Macky Sall Ablaye bu dee bokk na ñi farak Ablaye lu ne dinañ ko ci daj su ne bokkatuma du ñàkk am ci ci waa kër ablaay ñoo xam ne amaa sax mën nañoo bañ bañ a bare trop nañ ne ah kon ma woteel Macky Sall waaye bu fekkee Ablaye dafa feesal Moodu feesal Ngañ feesal Jean feesal faatu feesal kon Macky li mu bëgg du ko am li mu bëgg mooy jàll premier tour loo xam naa gaa moom du ci àlla kulli du mënta jàll premier tour waaye loolu moo gën a wóor su ko defee du jàll premier tour su jàllul premier tour nag moom Euh, ka nga xam ne moo génn ci opposition bi ñi ci des jàppale ko ñoom kat nun kat noonu lan defoon ci jamonoy ab Diouf Abdoulaye Wade moo jiitu Moustapha Niass moo ca tog woon ak euh, ñëpp di ànd defub dànk jàppale euh, nu mu tudd président Abdoulaye waat ba mu gañee président Abdou Diouf jamonoy président Abdoulaye Wade itam Macky Sall ñoom ñi loolu lañ defoon Macky Sall moom vingt six pour cent la amoon sax far <laughs> waaw moom amuloon lu bari alors waaye gis nga ne ñëpp dañ ko jàppale que moo ci ëppale woon lii rek a tax mu gagné président lay Wade kat kon nag ah, loo xam ne kay moom jot na fee am amatu fi euh, foofu rek lañ koy jaarale moo tax fii ñu tollu tembe opposition bi li nga xam ne moom la ñuy dox mooy nun ñépp du ànd xeex xeex bi bi mu laaj pour élection ci Sénégal awaat yoon parce que fi mën a jàdd na yoon donc dañu bëgg a ànd ñun ñépp nu xeex lépp lu mu laaj ñu jox ko ko ba élection awaat yoon ci Sénégal bu élection awaatee yoon ci Sénégal bu ñu ci élection présidentielle ku bëgg a nekk candidat mën nga nekk candidat mais bu boobaa ku ci ëpple nag ku ci jiitu ci nun euh, ñu jàppale la pour boo jàkkaarloo ak président Sall man koo gañe xam nga loolu lu ama ama am solo la parce que bu fekkee ne àndunu xeex xeex bi ci war parce que ñii ñoom kenn mën a tut ci ñoom pour am ay élection yu tegu ci yoon il faut euh, nu xeex xeex bu wér a wéra a wér wér a euh, lu ci war a am am ci ba yëf yi teguwaat ci yoon su fekkee na teguwaat na ci yoon moom euh, ñu doxale ko noonu bu dul loolu même ñun ñëpp bu nu àndee nekk benn te élection bi teguñu ko ci yoon Macky dina ne am naa quatre-vingts pour cent. opposition am na vingt pour cent. est-ce que est-ce que président bi tamit tey est-ce que mën nañu xaar si ñoom euh, ñu booloo su xam ndax gis nañ fi Mankoo Mankoo taxawu Sénégal Mankoo du Sénégal autant pour moi gis fi yenn rassemblement yoo xam ne dafa dajale woon opposition bi ñu dem ba si biir ñu gis seen ku si nekk jaar si yoon est-ce que mën nañu xaaraat opposition. non du mën a am ci biir xam nga lu tax mooy li ma la doon wax. xam nga fële raw gàddu la ci élection législative loolu laa leen doon expliquer di maanaam li wutale élection député ak élection euh, président élection député bu àndoon loolu la ñëpp bëggoon di man mii loolu laa bëggoon dox naa ko ñaari at sama salon bii nuy waxtaane fi la opposition bi yëpp daan daje nuy waxtaan bu fekkonte ne loolu am na kon ndakaaru gi nga xam ne ñoom dañ ko gagné 34 pour cent jël juróom-ñaari député bu fekkoon ne ànd ëpp ëppalee nañ leen nun li nu am ak li waa ñi liste bi xalifa Sall jiite woon ak liste bi Abdoulaye jiite woon bu ñu àndoon ëppalee nañu leen juróom fukki junni carte cinq cinquante cinq mille euh, voix la ñu leen la leen ëpp ëppalee kon xam nga bu ñu àndoon nooy jël juróom-ñaari député yi feneen noo koy gañe feneen noo koy gañe feneen noo koy gañe kon xëy na sax tey jii xalifa Sall mi ñuy wax kon génn na ci kaso bi que jël nañu majorité ba former gouvernement. lan moo tax président mënu leen opposition bi mënuñu ànd ba léegi. déet déet déet nañu wax yemal ci législative yi bul bul bul bul gaawtu. ci législative laay wax ndax raw gàddul dama la ne. ci législative yi fanweeri nit ak ñeent ñoo leen woteel ci Dakar ci téeméer bu ne te dañ jël nañ juróom-ñaar yi. opposition bi dama ne bu doon présidentiel nag moom. day dem deuxième tour te kon du gagné dégg nga wax ji waaw bu ñu jaawalee jaawale après ñu ñëw ci présidentielle euh, élection législative bi lañ doon wax li nu bëggoon man mii li ma bëggoon mooy ñu ñëpp nu àndandoo suñu àndandoo woon euh, nooy gagné kon xalifa Sall génn ñu defar gouvernement nga ne lu tax àndunu ah loolu nag moom xam nga kenn ku ne da ciy am <laughs> nu mu nu mu ab àtte boppam nu mu koy àtte ba daal xam naa ne ah ñun dañu waxoon ne nañu jiital président Ablaye Wade ñun ñëpp ñu ànd ak moom euh, bu nu gañee euh, seet nañuy def am ñoo xam ne dañu jàppoon ne ñoom dañu war a jiital xalifa Sall waaw lii rek euh, daal moom moo indi woon problème bi. fii mu ne daal fi ñu toll te sénégalais yépp war koo xam fan yii di ñëw di ngeen di ngeen ko gis mooy opposition bi dinañu ànd. nekk benn xeex lu mu laaj dinañ ko ko jox ba élection ci Sénégal delluwaat nekk élection bu normal nga xam ne ku gañe dinañ xam ne yaa gagné su Macky Sall gagné ñëpp dinañ xam ne moo gañe dinañ ko félicité su fekkee ne keneen a gagné it ñu xam ne keneen a gagné loolu daal moom ci boobu xeex la ñu taxaw parce que boobu xeex mooy bi ëpp solo ndax bu nu ko xeexut bu nu àndoon nekk benn it du nu gagné ndax élection bi du aw yoon. dégg nga wax ji bu baax a baax voilà. léegi ñu gis ne Macky Sall par exemple bu doon dañuy wax ne chauffeur la da koo xam ne la day bës si accélérateur la rek mais bugg si opposition bi ku koy garde par exemple mu ngi jëm si mu ngi woote dialogue nekkoon na am na ministère ak ministre de l' intérieur mu fi tegoon Abdoulaye Daouda Diallo tey mu tegaat fi Aly Ngouille Ndiaye tey pour dialogue boobu am tey dëgg-dëgg lan moo war a jiitu. non ñun dafa am loo xam ne yaakaar nañu ne euh, mënta ñàkk. su fekkee bëgg nañu wote aw ci yoon ci senegal toujours damay wax ne am réew bu jëkkoon balak poudre a koy joxe da tojum réew ñii damm ñii dee ñii daw ña fa des nga yilif leen ba keneen ëpp la doole ñëw toj réew ma yilif ko léegi nag dañuy wote rek bu jan soye ñu wàññi ko ëpp la toog moo ëpp yërmande su fekkee dañ fee bëgg a jële loolu nag teg ko fee ba noppi doxale ko doole kon réew mi day dugg ci giraawaal yi maanaam booy wax nag nit ñi booy wax ah ñu ne la ko wax gisoo oto yi buñ koy surcharge war cee def ñaar fukki ni def ci fanweer jëm fanweer ak juróom mbaa ñeen fukk su amee ku ne hey dañ ko naan su booxun ma la te lañuy xam ne lii nuy def baaxut waaye dañ koy def boo waxee ñu ne ndax yàlla alors moo foofu la tollu senegal Sénégal est-ce que dañuy bàyyi Macky Sall na mu def ci référendum def ko ci élection député yi mu def ko ci élection présidentielle wala déet loolooy problème bi opposition bi moom wax na ne du ko fi du ko seetaan wax na ne du ko seetaan bu fi naree am du ko fi fekk opposition bi loolu la wax nit ñi nag bu ñu jàppee ne parce que nit ñi ñooy tànn ndax ñoom it ci la ñu kon xam du ñaari mbër yi rek nit ñi ñooy tànn bu dee ne yow ñiy tànn nag dañoo jàpp ne lii gars yi di wax kat euh, du sama affaire affaire bi day garaaw xoolal xale yi dee ci libi ak Méditerranée ak ñu di leen jaay ca marché ya ñooñu lan lañu doon ci problème Sénégal parce que Sénégal nañ ko war a doxale dañ ko naa doxaliwut moo tax teraanga ji fi ay doomam waroon na am amuñu ko fi moo tax ñuy gàddaay di dem kon nag kenn ku ne sa mbir la kenn warul jàpp ne waaw waa politiciens yi ñoo ko seq déedéet loolu daal laa bëgg wax euh, kon unité opposition bi macha allah ñi ngi ciy dox te dina am fan fii ak fan yu néew dina am lu ngeen ci dégg ak lu ngeen ci gis euh, euh, ñu jëm ci élection présidentielle ku Sénégal yi tànn ñoo xam ne Euh, yow lañu ñu taal waaw. léegi euh, ñu jëm si si dialogue bi ñu chang changé nañu ministre léegi ak euh, ñu si Aly Ngouille Ndiaye est-ce que tey jii bu ñu jëlaatoon beneen ministre wala bu ñu tabaat keneen loolu solution la comme par exemple. non non non laaj nga ma ko sax c'est vrai laaj nga ma ko maanaam ñun dañu ne ministre de l'intérieur warta organiser élection yi loolu la ñu wax. Macky Sall ba mu nekkee opposition da ne ministre de l' intérieur warut a organiser élection xam nga mi ngi ci <laughs> internet bi ku dem boo bësee bouton dégg Macky Sall muy wax ministre de l' intérieur eh bien warul a organiser élection loolu la waxoon léegi mooy président la république de loolee ma doon wax nag dindi naa ko yéen opposition bi li ngeen bëgg te ma bëggoon ko ba ma nekkee opposition duma ko def fu mu ko teg. fu mu ko teg maa doole ji lool lool bu leen neexee loolu laay def bu leen neexut loolu laay def foofu la ko teg ba tey ñu set kooku déjà problème la ñaareel ba aussi am na ay yoo xam ne mi ngi fi xew su fekkoon ne moom dafa bëgg jàmm comme ni mu ko waxee vraiment nit ñi waxtaan réew mi delluwaat dal euh, kii gouverner gouverner kii opposé opposé bu ñu yeggee ci wote ñu wote ku Euh, gagné ñu xam ne yaa gagné waaw ana Karim Wade ana Karim Wade jàpp ko fi sàcc nañ da nangami junniy milliards léegi France daal di xëddeen ana Karim Wade Karim Wade mooy candidat parti démocratique sénégalais alors loolu dañ koy daal di jàllale ci lu tubaab di wax perte et profit maanaam daal euh, lépp doxee fa tàbbi géej xam nga du mën a ne xalifa sàll mii la la même chose moo tax affaire bi euh, Macky Sall xam na li mu war a def ah. xam na li war a def léegi nag bon moom mooy seet su ko neexee mu def ko réew mi dellu ci jàmm su ko neexee aussi mu ne duma ko def damay ñaaj damay ñaaj man na nekk hein man man na ñaaj am na réew yoo xam ne ci Afrique dañ ko def ñaaj ka fa ne ñaaj jàll bon nit ñaa ngay dee guddeeg bëccëg nit ñaa ngay lu nekk nga xew ci réew ma réew ma sànku na mais def nañ ko ñoom ña nga fa àndi nag toog bala leen cay fekk fekk leen fa mais yaakaar naa ne fii ci Sénégal loolu du fi am. nga wax léegi ba tudd Khalifa Sall tudd Karim ñoom ñaar mu am benn affaire boo xam ne da leen boole bu ñu ko waxee si état bi ñu koy justifier muy traque des biens mal par exemple ak reddition des comptes tey ñu dégg soxna Aminata par exemple nee bi fi état bi nekkee par exemple bi ñu commencé loolu ba léegi programme boobu il y a cinq ans deux cent milliards nañu ko yow nan nan ngay jàngatee. xam nga day politique rek <laughs> Mimi sama rakk jooju day politique rek xam nga même bu doon ne mille milliards la ñuy jot est-ce que jot nañ ko ci ña ñu ko doon jiiñ <laughs> looloo ci am solo xam ay jot naa deux cent milliards ak jot naa cinquante milliards jot naa mille est-ce que jot nañu dërëm bi gën a tuuti ci ñi ñu koy jiiñ ci politique amul. amul benn politicien boo xam ne nee nañu da nga doon danga ngaa sàcc xaalis bi bu ñu am dërëm ci yow kon nag xam nga ne loolu ay ay ay dañuy font rek dañuy font rek dañuy font rek xam nga boo ne dangay ngay traque des biens mal acquis dégg nga maam say gaay ñi nga xam ne dañ leen a nuus loxo ci poos ñu jàpp leen loxo ci poos ka leen jàpp nga dàq ko ña ñuy jàpp loxo ci poos nga baleen fa kon nag leneen loo wax kenn mënu koo gëm dañuy font rek mais sénégalais yi léegi gëmatuñ leen sax gëmatuñ leen sax maam ñi ci profito daal ñoom ñi ngi wax nag ak di rafetal a yu mel noonu waaye moom <laughs> sénégal yi ñoom li ñuy xam-xam nañ ko ñi ngi toppatoo seeni soxla bu bés ba jotee dinañ def li ñu war a def dellu ci seeni soxla léegi Ka Khalifa Sall yow comme wax nga ci ba dugal ñu foofu léegi Ka Khalifa Sall léegi au delà du combat politique léegi ñu gis ne moom détournement bi ñuy wax ci caisse d'avance moom dafa ñëwoon fekk ñeneen di gérer moom mu gérer noonu est yoon la woon moom mu ñëw topp noonu juste waaw mais bu dee ne du yoon kon nga jàpp ñépp jàppal ñëpp nga tànn kenn jàpp ko mu ngi mel ni Karim Wade rek dafa dafa amoon liste vingt cinq ñaar fukki nit ak juróom nga jàpp kenn <laughs> ah, lépp doxe fa tàbbi fii bari nañu nga jàpp kenn non non non non non non c'est-à-dire Macky Sall mënatul a doxal c'est-à-dire euh, euh, euh, kenn mënatul a gëm ay waxam ci ne damay jéem a defar parce que defar àndut ak yàq mënoo di defar fii di yàq fii ba ba noppi ñu jàpp ne da ngay defar déedéet justice aussi du juste amul juste su cinquante pour cent soixante quinze pour cent quatre vingt cinq pour déedéet justice amut day juste wala mu bañ a juste loolu loolu mooy mbir mi boo dee damay jàpp sàcc yàlla diw mi kat sàcc la te yow mënoo ba ci ñu jonn yàlla tey amoo firnde ji wane ne diw mi sàcc la waaye ña nga xam ne ñoom dañ leen a jàpp loxo ci poos te ñuy say nit nga baleen fa kon leneen loo waxit kenn mënu koo gëm lii lii rekk ci ne xam nga barki démb damay euh, dafa am émission fu Macky Sall di wax eh sama juróom-ñaari at yi ñu ma fal dama koy wàññi def ko juróomi at ngir ñu xam ne nangam nangam nangam nangam ko kenn fàttewu ko ba génn na ca alors ku mel noonu su la ne euh, fii la ginaar yi jaar xam mi da koy déglu rek dem doxe say soxla président ñu yegg agsi nañu si cappaandaw émission bi yaa doon si si émission jotaay politique ñu bàyyi leen nga tàggatoo ak ñi la doon seetaan sur Dakar Midi. waaw maa ngi lay gërëm Junior euh, di gërëm aussi euh, euh, seen sa caméraman yi sa technicien yi di itam jégalu ñu ñuy déglu ci dëng ñu baal ma ko. sant ñi jërëjëf yi yéen a ngi doon seetaan jotaay seen émission jotaayu politique. ci doon daral tey président Mamadou Diop Decroix di njiital AJ/PADS di tamit député deuxième législature di jox leen. daje si beneen émission jotaayu politique ak beneen leader politique.